information. na jëf mbokk yi ci seen ànd ak euh, TFM Télé Futurs Médias seen émission faram leen dalal jàmm leen wax euh, ñu ngi leen di gërëmati ci ànd beeg ñun di ñaanal Pape nga Ndiaye euh, congé jàmm sunu gan kon Abdou Karim Fofana salaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj bu bu Sénégal dañuy njëkkee li ñu gontee Euh, jëmmale ci wàllu liberté wàllu démocratie euh, opposition bi rawatina Pastef Birame Souleye Diop président groupe parlementaire ñu féexal ko liberté provisoire gannaaw kàddu yi mu woon ci Macky Sall jéggalu woon terewul ñu jàpp ko tëj euh, El Malick Ndiaye moom it dimanche ñu jàppoon ko garde ko def ko ay retour de parquet bàyyiwaat ko nooy jàngate loola ak lu muy tekki waaw li may jàngat rek mooy état ak yoon liggéeyam la def ndaxte Babacar homme politique da ngay responsable homme politique da ngay xam lu tax mu ne la nga nga ne fi homme politique li ko war mooy ñaw ak defar mais du yàq bu ma déggee ku mel ni Birame Souleye Diop kàddu yi mu wax jëmale ko ci président Macky Sall président Macky sax tàmm yu mel noonu di ko dégg di jéggale peut-être procureur mooy jël responsabilité parce que institution da jéggi na nit mais dëkk bu mel nii Côte d'Ivoire ku xam digganteem ak Sénégal lu mel noonu euh, xew ci baat bu ñagas bu demee noonu lu mel ni chef de d'état nga tuumaal ko ne li nga wax sax man bëgguma ci dellu si waat ndaxte c'est tellement irresponsable nga xam ne mënoon na indi jéey ndaxte bëri na réew yoo xam ne arbitre football képp moo def naka sudul noonu ci réew ma réew ma ca topp ñu tey doomu waa réew moom mu di leen boom gis ngeen Juan Branco li nga xam ne moom la ko gouvernement français di toppee nee nañ la mu wax ak la mu def Sénégal mën na andi jéey diggante ay doomu Sénégal ak doomu France yi nga xam ne ñoo fi ne maanaam mise en danger de la vie de ces gens là donc Birame Souleye jégalu woon waaw mais euh, jégalu doyul déedéet parce que am na ñoo xam ne tamit leen yi tayeef la maanaam am na loo xam ne boo ko jégaloo ñu bàll mais boo defee loo xamante ne du sa jëm kese la engagé da nga engagé état il est député de l'Assemblée wax ci réquisition bi mooy dafa woyofal euh, li nga xamante ne nasaxal li nga xam ne mooy kaddu ak dayoowu assemblée nationale euh, El Malick Ndiaye dama ciy sawar di wax ndaxte El Malick Ndiaye man sama promotionnaire la mën naa wax sax ne sama xarit la. réew di wax euh, boo ko laajoon dina la ko wax. mais nit da ngay am kàddu yu responsable parti politique da ngay défendre ay mais mënoo toog di woo nit ñi naan daje leen def leen nii boo lii boo leen ko nangoo boo leen def nii ñun. mais on est un pays boo xamante ne. est-ce que moom la est xam ba xam dañuy dégg. defal enregistrement bi ñu dégg est-ce que moom la Sénégal hmm? Babacar euh, dama jàpp ne police gendarmerie justice bés bu ne ñu tuumaal leen mais bés bu ne ñu yeyuñu ci yu bëree bëri bëri bëri bëri bëri na ay décision de justice yu ñu fi daan wax woy dañ ko manipuler justice bi nii justice bi naa yenn saa ngi décision de justice ki yéene ki yéenewul jàmm diw du kontaan ki nga xamante ne moom lañ accusé du kontaan kon nga xam ne justice bi nekk lu fi euh, majorité wala opposition il faut que nit ñi seen xel euh, dellu si ñu xam ne politique responsabilité la sacerdoce la boo ko yoree da nga war a bàyyi xel mais du caagin ne da nga am lu la neex rek nga taxaw ci télé bi jël micro wax lu la neex ma jox la benn exemple yaa ngi may tooñ léegi ne ma xanaa di nga may scoop ma jox la benn du Sénégal en Côte d'Ivoire il a été convoqué. ah bon a été a a été convoqué. ci affaire Birame Souleye ci affaire Birame Souleye Diop mais c' était pour le féliciter pour lui dire que bu Sénégal deful woon li mu def. peut-être dinañ la convoqué wax la leneen. kon dañoo jàpp Birame Souleye pour neexal Côte d'Ivoire. non jàppuñu Birame Souleye ngir neexal Côte d'Ivoire dañoo jàpp Birame Souleye ndax dafa def lu defuwul dafa def loo xamante ni irresponsabilité pure la infraction. wax ni rek léegi nag léegi nag léegi nag wax ni jégalu na dama ne dafa am loo xam ne boo toogee jégalu ko ci pénc lu tax ñu jégal la jëf jëyi ba pare taxaw ne jégalu naa loolu c'est irresponsable boo demee ba ñu def la président groupe parlementaire groupe parlementaire tuuti. dafa bokk ci li nga xamante ne bureau assemblée nationale te mënoo téye sa lamine mënoo setantal la ngay wax mënoo ko segg bu boobaa sa sa sa kilifteef ak lañ lay doyee des na. mais sa dépend rek ci fi ngeen féete ci ci ci nguur gi wala ci. xanaa kon politique xanaa xanaa xanaa xanaa yaa ngi wax yaa ngi wax waxi justice. Euh, yi ñu leen ji. ci ay mhm. léexoor ci yorenu alalu réew mi. Mhm. rapport bi jëm ci Covid bi. Mhm. rapport yi ñu ci yeneen i kilifa yu bokk ci yenn APR. ba fii fouraas daal di xëddeen. waaw mais Babacar mais Babacar. ba fii xanaa da nga tànn li la ci neex rek waaye ñaata nitu majorité bi lañ tuumaal passeport diplomatique ñaata nitu majorité bi lañ wax ci ay mbiru yakkataan dama yàlla jégal ci kàddu yi may wax ak yeneen. te dem na justice non déglu non a defal naa ah. lii yow tamit Babacar bu fekkee da ngay def sa liggéeyu journaliste mënoo substitué wu wax lu rapport yi waxul dama lay jox benn exemple rapport yi bés bu ne ñu liir ko ne rapport bi nee na dafa am euh, nu mu tudd bradage dafa am nangam alors que rapport yi utilisé wul terme yooyu rapport yi dafa wax ne dans tel ministère problème sàngam am na fa je vous donne un exemple man je suis ministre du commerce au niveau du ministère du commerce nee rapport bi nee na la ñu jëndee ceeb at sàngam nangam nangam mais euh, ñi nga xamante ne ñoo yor enquête bi def nañ seen enquête non yow itam da ngay tànn exemple bu nga wax ci ministre bi doon génne 100 millions par jour ci banque bi. mais mais mën nañ ko def mais mais mais mën nañ ko wax tamit xam nga lu tax. parce que rapport bi waxul le ministre bi parce que le ministre ne gère pas de chèque. oui oui parce non, que attends, da nga moom mooy poste bu yomb bi. Babacar lu muy xew ci ministère bi. ci ni loi yi tëjoo Sénégal lu mënti xew ci ministère bi ministre moom kenn du ko topp DAGE bi la ñuy wax wala beneen collaborateur am c'est ça aussi malheureusement pour les DAGE et pour les autres. Euh, fonctionnaire des du Sénégal. defe woon naa ne yaa dàq gan Papa gis naa ne yéen ñaar benn ngeen da nga may may ndaxte man maay sa laaj mii di ministre ma wax li am lenn la Babacar yéen bu ñu nee rapport rek yàkkamti ngeen ñu jàpp ministre je sais pas que vous avez contre les ministres je vous explique une chose rapport bi dafa wax ne les gestionnaires rapport bi ne mu tudd tur ci ministère mais ki mu tudd ak ministre bi ñoo bokk tur mais waxuñu leen ni ministre bi moo génnee loolu tamit encore une fois tey li nga wax ni dëppawul ak li nga xamante ne moom la rapport bi wax rapport bi ne am na ku tudd nangam gestionnaire de compte gestionnaire au ministère bés bu ne génnee na nangam. te rapport bi xam nga lan la wax. ci ndigalu ministre bi waa déggul déedéet. ci ndigalu ministre bi déedéet déedéet defal nang defal da nga naan sous l' autorité mais mënoo ne ci ndigalu ministère ministre bi parce que loolu rapport waxu ko. Babacar rapport bi ne la li mu def dañ koy tere waaye waxu la sanction parce que payoor ak fay dañ la ne fay en espèce tere nañ ko déggul baax li ma la wax loolu dama lay wax finance publique li mu wax dañ la ne fay en espèce tere tere nañ ko. mais waxuñu la ne dafa am sanction bu ci tegu parce que fay en espèce fay la comme yeneen mais dañ ne gënul. waratuñ ko def ci administration. montant waaw mais c'est pas facile. parce que boo déglu woon da ngay nangu defal nang da nga yow li nga wax léegi dafa am njuumte. Hmm. dañu nekk ci plateau ay sénégalais di ñu déglu. nga ne lii ak lii may la déedéet dañu wax gestionnaire dama jox naa la exemple ministère du commerce ñu ne diggante Euh, ceeb bi ñu jënd non euh, lan la ñu wax te diggante masque wala euh, gel yi ñu jënd dafa am différence huit cent trente cinq mille francs ñu ne arrêté bi lii la wax ki nga xamante ne moom lañu àtte moom mu génnee arrêté bi ne arrêté bi ñu wax ne moom moo homologué prix yi lii la wax ak lii jamono bi ñu koy jënd amul woon sur le marché dafa amoon spéculation donc da ngay jënd wala doo jënd. mais 835000 dem na wuy ji na ñëpp dem nañ wuy ji tey boo gisee ci journaux sax nee la ci li ma dégg ci journaux mooy pare nañ enquête yi donc mi ngi dem mais bu leen wax ne oui état bi day tànn ay dossiers état bi tànnul ay dossiers chaque fois bu amee lu avéré parce que attention procédure pénale da ngeen koy bàyyi xel ay étapes yu bëri la gis nga nit mënoo jékki-jékki rek buñ xataal ko ne nangam da ngay dem ci police wala gendarmerie mu def enquête nga pare ñu jox keneen procureur mu def enquête mu pare. mu jox juge d'instruction mu def enquête mu pare mu dem ci juge mu àtte bu la neexee nga dem appel bu la neexee nga dem cassation. xam loolu nga war a xam ne ñun système bu dëgër lañ am mais waroo taxaw rek ne à charge non parce que gouvernement la parce que Karim Fofana la sant parce que cravate la sol nangam nangam ñun journalistes yi ñoo baax ñeneen ñi nangam nangam du noonu. pas du tout ku ma am ndey ak ku ma ci loolu loolu sa constat la. Babacar xam nga lu tax xam nga lu tax misaal. parce bi ngay bi ngay affaire Birame Souleye Diop lañ lañ tàmbalee. ñooñu dafa yëkkati kàddu yu ñagas jëmale ci njiitu réew mi ak yooyu ci seen njaboot yéen wala sax ñoo xam ne nekkuñu woon ci seen njaboot nañu jël exemple exemple terre à terre mais symboliquement important mais jëlal benn am na xale bu góor bu ñu naan Kaliphone waaw lu mu yàqul Macky Sall ci. mais Kaliphone il pas député. mais dañ ko jàpp. oui non non c'est pas exemple dañ ko jàpp. justice mais bi mu ko defee non mais attends Babacar Fall on parle justice dañ ko jàpp. non non je parle pas de ça je peux pas li ko jàppee woon li ko jàppee woon li ko jàppee woon du ci kàddu yu yëkkati. saaga Macky ak soxnaam Babacar dama la ne Macky Sall ak soxnaam saa yu saaga wala yu noonu amee mosoo leen dégg ñu porte plainte sama genre gi la tudd ñu porte plainte waaye ñoom dañ jàpp ne lu ñu leen def ci njiit garaawul par contre procureur wala nangam ak nangam dina saisir mais man li ma la bëgg wax mooy on parle d'un député à l'Assemblée nationale ci insinue des choses sur un chef d'État étranger mais Babacar est-ce que vous mesurez ce que vous dites quand même on est assez responsable le Sénégal c'est une république ñu am ay partenaires à l'étranger mais ñu ni ñu ivoirien yi di xoolee ni ñu état ivoirien di xoole ak yeneen ak yeneen mais la preuve kon yow Juan Branco lañ ko lañ koy defal mandat France kon pour neexal Sénégal la mais y a des réalités ya des réalités mënoo ñëw ñu ñu jox la une charge publique de député nga taxaw à l'Assemblée nationale di représenter une partie de de la nation wala la nation intégralement. war a wax lu la neex ak lu la neexul. waratoo waxal sa bopp. mais attends man bëri na sujet yoo xamante ne Babacar. mën naa toog sama kër commenté ko nu ma neexee mais su ma toogee di waxal askan bi damay seet lu waxu ak lu waxuwul. Juan Branco Branco pendant pendant qu'on y est. oui c'est ça aussi euh, euh, le constat. oui bu ndaw. nekk France. oui toog fii di leen yëngal. non yéen la yëngal. parce que yéen a ko yéen non Babacar. Babacar yéen a ko may riir ngeen koy def ay. non euh, yéen a international. bu bu génnee bu génnee def def interview ngeen dem ci rajo yi ci télé yi. nan ngeen koy tontu. mais xam nga lu tax. xam nga lu tax xam nga lu tax. parce que problème bi du âge problème bi du statut problème bi mooy ñun on a des responsabilités dañu dénk état dénk nation yéen seen posture neex na da ngay sol sa jiin 22h ñoo def sa émission wax lu la neex man damay rendre compte defal nank quand on agresse l'État du Sénégal, quand on, euh, quand on se prend, quand on euh, s'exprime de façon irrespectueuse irrévérencieuse vis-à-vis de nos institutions mais dafa am ku war a tontu ndaxte dañu voté président de la République woon unis sur le Capitole di gis nga journaliste américain li ñu def li xew France jamono yi gis nga journal français yi li ñu def commentaire yi ñu def mais yéen tamit seen responsabilité dafa am fu mu tàmbalee ak fu mu tàmbalee ak gouvernement Sénégal bi bi waaw lu leen yëngal dafa yomb gis nañ fi sax fan yee communiqué contre une chaîne française France 24. oui mais naturellement mais naturellement. mais Sénégal yu bëri li ñu jàpp mooy bi ñu gisee loola dañoo ni ñun Burkina lañ nekk wala Sénégal euh, wala Mali. Sénégal baaxoowul euh, comme ça. Euh, Babacar attaquer des médias étrangers. naan dañuy jëng ci seen liggéey. mais Babacar. Babacar. qu'est-ce que vous reprochez à France 24. waaw boo ma laajee ma tontu la yow j'imagine que tey. te fekk na sax yow tey yow ca démb sax nga fa jóge waaw xëy ngeen def communiqué. waaw mais dëgg la dem fa teewul nga wax li la neex ak la naqari mais yéen am na yéen sant leen yàlla ñun dañuy wax lu ñu naqari am na parti politique yoo xam ne bu ñu amee lu leen métti dañuy ñëw di taal télé yi yéen bi ngeen waxee loo xamante ne dafa diggu doomu am na ñoo xam dañ dem taal seen i oto seen buntu rajo. am ñoo xamante ne bu ñu taxawee bitim réew di wax suñu réew naka sudul noonu wala di defee journalisme naka sudul noonu Babacar je vous donne un exemple est-ce que mën nga comprendre benn médium boo xamante ne ak dëkk bu mu mënti jóge am information Birame Souleye jóob dafa wax nangam ak nangam tudd ay chef d'état ci bandeau bi nga xamante ne moom mooy jàllale xibaar boobu ñu ne Birame Souleye Diop dañ ko jàpp rek ndaxte dafa laam-laamee euh, li Macky Sall li yéene ne du doon candidat loolu dëgg loolu dëgg yow mi di journaliste xibaar boobu dëgg loolu dëgg boo doon journaliste man je suis sûr que doo ko traité noonu. mais laam-laamee la waaw mais defal nànk. laam-laamee la du laam-laamee du yamul ci laam-laamee rek. man gis naa man man man non. insinué wul insinué wul attention attention. Babacar Fall man jusqu'à preuve du contraire professionnel bu am moral laa la jàppee Birame Souleye Diop li mu wax yëpp li ci gën a important du mettre en doute la volonté du président Macky Sall bëri na ko def ah. li ci gën a important mooy dafa wax ne ci réew bu ñu moytuwul danañ def li xew réew sàngam ndaxte nii ak nii ak la demee. yow boo nekkee professionnel de l'information dafa la war a attirer Sénégal nag bu ñu mayee ba ku ne parce que ñun bëgguñu àgg ci li nga xam ne yeneen dëkk yi loolu lañu àgg parce que boo tuddee yenn dëkk yi ñoom dañuy dàq ay journalistes ñun dàquñu journaliste la preuve li ma leen di tooñee médias étrangers nee naa leen da ngeen ñuy xas wala di ñu tooñ Sénégal waaye saa yu leen dàqee Sénégal ngeen di ñëw ñu ubbil leen teraanga ngeen di dugg di jot ministre yi di yónnee WhatsApp ñu leen di ko def ak médias sénégalais yi mais nag un pays doit se faire respecter c'est pas parce que ubbil naa la sama kanam yaatal naa la ko lu la neex def et puis am na yeneen yu jiitu yoo xam ne boo duñ ko tudd mais lii c'est un fait très grave parce que dafa laal d'abord relation wu ñaari réew ba pare laal tamit nga jégal ma li nga xam ne mooy la vie de nos institutions. am na leneen loo xam ne moo des bàyyi nañ El Malick mu ñibbaat këram génn nañ Birame Souleye ci kaso bi. Mhm. seen njiit ñoom ci politique di Ousmane Sonko. Mhm. ba léegi yéen a ngi yóbbu policiers yi ñu koy toogaanu foofu.